cinq mois damay dem damay dem Dubaay fa laa jëndee yëre yëpp ñëw indi xam nga kan laay woo Mor Thiam mu may bàq naan ma maam Ndiaye Savon mat nga idole mat nga référence maam Ndiaye Savon ma ko man naan ko man ma woo kii nu mu tudd Birame Matar Birame Magacine Diop ay da bu ma tooñee mu naan maam Ndiaye Savon mu naan ma Matar ay ans ans dama ah, ans de nan mala ma woo biram Matar biram Fatim Diop mu naan maam Ndiaye boo juumee. Eh. tiktok bi nañ la baal. ma naan ko may bàyyi maa ne mbaay mën wax dootul am waaw moom man su ma amee doom moom biisu ngoone day ñëw biisu ngoone. ay waa jiwe biisu ngoone yow laa tuddee doom ji biisu ngoone ah. damaa ëmb. nee na la waa léegi bi ëmb bi amagul ay sponsor <laughs> ndax sponsoriser leen nag. ah am na ku ma woo léegi nee na mi ngi may livré trois robes. trois robes sponsorisé leen bisu ngoone laay tuddee doom ji. sama waa ji yaa gën riis barki démb nga ma téléphone ma nga ma sa la ko indi bisu heure boo ko indee. tubaarikàlla macha allah nekkoo ci réew mi rek di jaxase. waaw xale yi nee bëgg sponsorisé comme yow lan ak lan ngay soxla sponsorisé. man damay bëgg ay ay Dakar. ay Dakar waaw. ay am non non matt day toog sama tuñ mu ma damay bëgg dëgg la. ah damay bëgg cere sama maam naan ma yaa ngi lekk cere di nga day de. ay waay <laughs> su ma mbee damay bëgg cere sama maam naan cere baaxul maam yaay baal cere ji cere baaxul de yaa ngi lekk cere di nga ko fay fee de ma naan ko maam man kay cere rek laa bëgg. ba pare bu ma mbee damay soxla coton tiis. sama nopp yi danaan kuruñ kuruñ rek. yaa ngi dégg. bu ma mbee daal ay madd bugguma ko. man ak ñoom leen xale nañ laa bëgg sponsorisé léegi ñu woote man ma ñëw jël si ko lan ak lan. ah sponsorisé leen ma jomb bi. comme ay jàllale moom bëgg na yee Mamadou Yatta saa woo na ma. ay ay nee na ma bu naanati ndoxu ribéno ak waa Tera mi ngi ñëw. ay tool ay tool. ay tool ak ma kaa bëgg. te tool xam nga nu ma koy lekkee. dama koy toj mu ubbee ko rek ma capp ci xorom rek lum ah maa mën a lekk tool nag. man sa robe bi doo ko jaayee rek. Ah, man kay dinaa ko jaay Mamadou Yatta Saay moo ma woo téléphone bi may ñëw Mamadou Yatta Saay. nee na ma da leen indil frigo mooy frigo yi ma ñett. waaw kay sànq laa naan nee na Mamadou na mi ngi indi nox ku baax ci réew mi bëgg ma. Ah. ku bon ci réew mi ana waa an yeek. defar leen rek ba mu rafet rek ba jekk ba jekkaale ba place bi fees dell. saagi daal na place bi jekk. place bi rafet ki ne dina la indil. Hmm. muusu tool ñu ne nga wàññi boisson gaz bi comme da ngaa nekk en état boisson gaz bi dafay day sonal xale bi quoi. day sonal xale bi. waaw ah, man damaa bëgg gaz. Ah. franchement di par rek moi je je l'aime pas yow doo xool sa livraison yi. ça va bien. ah, ah dafa naan xaaral maa ngi ko patron eh moom. xaaral boobu ñu xaaral sa ba li cootaan la. maa ngi ko patron. ba déedéet kenn nga commandé <laughs> woon. li coo de bàyyi na liir ba ma nga ca livraison ya ba li coo ma Ndéla Ndiaye Sala Xari Ngone. bàyyi na fi mu ne de. ñu ci ma ni kenn woowu la fenn. ñu ci ma dee la njaaree fi mu ne bàyyi na liir ba ma ngay xuloo le péraison mu ngay xuloo li. fa nga nekk boo leen amoon mos a ne yéen pompe fu waaw waaw maa mën a tànn nag saag yëpp Dubaay laa ko bindee yëpp. léegi xaaral li. waaye kii du Moodu. maa ma bind la. Moodu nag mu ne fa la nekk nag. ci loo nekk mbaa Samba dogul. ah da ngaa dugaloon bii kaay ma ma ma fële.